maam alaaji Saalum maam alaaji Maas Ba ñoo ko fondement ndaw fondement bu rëy Cheikh Baaboy xalifatu baay ci biir ndukku man man biram em na ma daarul muhibbiina dugul maa ko wëy man min ka moo leen njëkkaa wëy cër ya la baa Cheikh Moustapha macha allah kon mooy ne suuru tey gis nañ fi loo xam ne ko fee mooy ne ci bis bi di àjjuma ci waxtu wi ci heure bi ñun ñëpp ñu daje fi def xadara def ak comme loolu ak suñu sëriñ loolu ma sut am addee bi nag lañ ko daan laajee na ma ko daan waxee ne ñëpp nañu addee parce que dafa doon loo xam ne nii dëgg dëgg yàlla moo ñu ko jagleel kon ñu nañ sant yàlla ci loolu ñu ngi leen di sant mbokki taalibe yi góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi di leen sant ci seen bopp ak ci di ndokkeel di ndokkeel waaye yemu ci ñu yàlla bu ñu ngi ñaan yàlla it képp ku fi ñëw xaaju boo fi mën a indi lu mu rëy bu du mooy yàlla du dog ak bokk yal na la ko yàlla fajal ñu ngi ñaan yàlla it bañ fii del si déwén kenn ku ne yal na wax ne yëg yokk naa ba yëg ne yokk naa ci mboolem xanami yokk yi nii nag ñu ngi leen ndokkeel ñu ngi jël nuyoo nag di ko teg ci loxol alaaji Maas Dia dégg nañ kàddu yim wax ak fàttali yim fàttali te lépp di dëgg te mu doon loo xam ne lu bari teewee nañ ko yàgg nañ ko déggitam waaye buñ paree ci kàddu porte parole maa ngi jàllale nuyoo bi ci mbooleem kilifay diine réew mi rawatina Ndoukoumane bépp mu muqaddam ñu ngi lay nuyu ak foo mën a nekk ak noo mën a tolloo koo mën a doon di la nuyu nuyu mbokk waaye nuyub soppe waaye nuyub yéena aw yu jógee ci ñun jëm ci yéen wala mu jógee ci yàlla jëm ci yéen jëm ci ñun ñëpp yal nañu ko yàlla defal ñi ngi ñaan yàlla yal na yàlla benn la jullit ñi ñi ngi ñaan yàlla yal na yàlla dox dox jox doole jullit ñi ñi ngi ñaan yàlla yal na déggoo xam mbokk yi asamaan si laa gis moo tax ma gaaw tënkee samay kàddu noonu waaye maa ngi jël sama nuyoo di ko yóbbu ci xalifa bi Cheikh Ibrahim Ba di ko wax jëf walla wala jërëjëfati jàngale nga diine de ku nekk xam ne ni lii diine la wane nga sax ngay wax yal na la yàlla xàllal yoon wi yal na la yàlla gunge waaye yal na la yàlla xaaral boppam jëf nga jëfi taalube alaaji maas ne na ndukkumaana ngi lay sagoo pey baa ngi lay sagoo yaakaar naa ne lu nit gàtt-gàtt nopp dégg nga xew-xew yi nga xam ne jóge ko na ci daarul muhibiina jëm ci pey Cheikh al Islam Ibrahima Niass di jëf yoo xam ne képp kuy julli rafetlu nga ko képp kuy kilifa rafetlu nga ko waaye rawatina na xalifa bi Mouhamadul Mahi Ibrahim muy jëf joo xam ne kenn jëfagut ko ñi nga lay ñaanalit yàlla na nga jiitu ci jëf yëpp jëf la ju réeréeréy joo xam ne àddina bi yëpp daj na kap sëriñ bi yal na yàlla may la fan ak wér ni la yàlla ni la péey bi yaakaaree ni la diine ji yaakaaree yàlla it kat noonu la la yaakaaree ci diinaam ji coobareem la de jar ngaa ñaanal wax dëgg yàlla su fekkee ñi ngi ci ak ndoom aadama waaye jarulaa ñaanal su fekkee ñi ngi ci péeb yàlla bi man de bëgg naa safan fan wi gudd bëgg naa it nga wér bëgg naa it nga am sago dama ko wax ñepp ko bëgg na waye dama baña togn motax ma xem ci sama bop li nga xal li la mag ñu doon hut ni nga doxale moy la mom la mag ñi bëggoon ci yow daf na Cheikh Ibrahima day doli rek de ngeen wax joju Cheikh Ibrahima day doli rek duma mëna wax lañ fa wax yépp waye dana mëna wax né dal sant na mom khalifa bi ci jëf ji nga xamné Cheikh Ibrahima ba jité na ko ci ndukuman ak wa darul muhibina yépp ñu diko def gi leneen lum ci tek di leen mit ci di jël ngeureum li diko jaarale ci mustafa Bassirou baye maj bu toy loxoon bi cheikh al islam di ñu fi tok ñu tegal ko lalu xànjar bu alaji omar ba jëndalon soxnam fatou mbóoj bim ci toogee bi baye di wax lu mu wax rek basiru ne ko lol hamut mu ne ko la mu ne ko yalla rek mu ne déggu ma bi lol neex na de waaw kon defe mangi ne ma ngi gërëm it Aliou lay defal Bayam Moron janggal alaji babu baabu ba alquran di di muqaddamab alaji mas mamam astaghfirullah mamam ba suratu yasin mu door jangi laxas dem jàngi alaji mas wóolu won ko lol jef ci mom jef yu reey def ko hiliman def ko serigne dara kon alaji aliw yewi kat da nga dolli rek di cheikh Muhammadul mahi wax alaji cheikh ibrahim Ba lol lañ lay wax yaa ko moom kat boo ko fi seetaan it si yëf nga seetaan boo ci defee dara ñu lay gërëm nit kat nit ñee baax rek waaye sa bopp ngay defal waaye yal na la yàlla dolli ba nga yëg ne dolleeku nga jox nañ la maire nga yore ko ñu jël beneen fonction ca dakaar jox la ko mën naa xam kat li nga foog ne doo ca xàgg soo ko bëggee it danga ca xàgg te yal na la ci yàlla xàggal ñu ngi lay ñaanal yàlla xaar la musal la ci yàqu ak yàqule ak ci pexeem noonu ak xéenaay bañ doomu Aliou Mbodj wax dëgg yàlla ku xam xeer yi li muy jar jënd naa ko ba tey quatre cent quatre cent soixante quinze mille jënd naa ko équipe muy ñëw ci jumaa ji kon su warloo di def loola ca tay bañ a seen ñëpp la ko defal moom it ñu ngi koy ñaanal yàlla ndollan yal na yàlla dooleel ko boppam di leen gërëm yéen ñëpp nag kenn ku nekk ci boppam di sant yàlla bu baax te xam njort ne man mii di wax ak dee foog naa ne yéen ñëpp man ngeen di dimbali loolu laa gëm nag te kenn mënu ma cee génne loolu de laa gëm kenn mënu ma cee génne waaye maa leen di ñaanal yàlla li ma leen xéene ak li leen sëriñ bi xéene li leen pay bi xéene yàlla bu leen dara mooy yàlla na ngeen xàndoo ni ab dànk waaye yàlla na ngeen tekkee ni dugub yàlla na ngeen barkee ni dugub yàlla na leen ñëpp bëgg te yàlla bu leen mere kenn salaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokk ñun ñëpp ñu bokk wax alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin maa ngi nuyu bokki jullit yi teew yëpp góor ñi ak jigéen ñi muqaddam yi président section yi président yi ahbaab yi fu ñu mënta bàyyeekoo wax ji dafa mel ni li ma waroon a wax li ma bëggoon a wax ma jiitu jaar nañ ci mu doy sëkk mat sëkkit sant yàlla rek moo ci mën a topp kàddu ki njëkk a jël microphone bi muy al muqaddamul baraka dirul fayda gannaaw buñ ko ndokkeelee ndokkeel suñ bopp ndokkeel suñu doom alxaaji baabu ba ku ñaanal yàlla ci am mooy sëy bi te loolu la yàlla di def moom ak Moustapha Ndaw ah, maag moom li Cheikh Alaaji daan wax ci Baye Mat ba fañ nidoo mbit ñoo bokk jàng fii jàng fa am mu di jaar fa dem Soudan yàlla dogal it ba ma jaar ca iniversité booba it la dem diplôme ba ma indi it moom la indi góor ja yàlla na yàlla sàmm la waaye waaw góor alaaji maas ba alaaji maas ja la ma waxoon ca weynde rek la ma waxoon ca weynde rek mbir mi jarul seeti fu sori alaaji maas ba moo ala alaaj mojur moo jur alaaj baabu ba waaye waxoon naa demba ma ne waaw góor Mame usine bi mooy usine bi produire matière première yep. yal na yàlla lafal ñu cat Ala ñu ngi lay ndokkeel bu baax wax dëgg yàlla exemple nga misaal nga ci ñi àndoon ak Cheikh ba ci ban bunt mooy sa njaboot jur nga doom ci ron sa sëriñ Cheikh Alaaji Baabu Ba muy bàyyi Jëtu mu nekk expert pétrolier ci ñu néew ñu réew mi tànn yóbbu leen ñu dem jàngi wàllu pétrole ku ne xam na luy pétrole mu dellu si réew mi di ko déglu nga juraat doom tuddee ko sa sëriñ Cheikh Alaaji Baabu Ba mu jaar fii ma wax ne fi la jaar gàcc ngalaama Alaaji Maas jërëjëf sumb yi ci ci ku ci jàpp ñu jàpp la ku ci jàpp nag ñu jàpp la waaw ku jàpp ñu jàpp la ku jàpp nag ñu jàpp la ñaari jàpp yi nag noo ko mën a firee rek yow mënu waaye jàpp yëpp nag mooy jàpp la te yàlla tax Cheikh Alaaj Baabu Ba moo doon wax ne Cheikh doomi aadama yi boo leen toppee ci seen yenn jikko yi ñoom sax bu njëriñ kilifa du toppe góor day jéggale kilifa du tiit kilifa du daw kilifa du fay wante moo tax ku jàpp ñu jàpp la ku jàpp jàpp jàpp la yàlla xam na ko bilaay lasi laay laay laa waa waaye neen ñu lay gërëm baax ñu bàyyi su lay wax rek ci alaaj baabu ba gannaaw bu ko bàyyee maam alaaj bu maas ba dala lay jàng ba mu fer ba commencé dawal bu Diané lako ko maam Alaaji Maas jël jox ko mam babu Diané mo continuer mom bu sóoratu yasin mu door la khas dem ca daara and ya ak Baye Alaaji Ahmad Ba min doon wax léegi sirazat yam dem sam dem euh, dimisqa nek ba non tuddee sax jaabi ak ya ci top yëpp ba ñu ci ba ci loxo maulana Cheikh Islam ba li ci xew yëpp ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay ñaanal yalla waxna fi enveloppe boobu monsieur le président de la république yónnee fii te jaarale ko ci loxo te dox ko it nag muy monsieur le ministre Abdoulaye Seydou Sow muy ñaar fukki million ak juróom yi ma taxawoon fii ne leen jotuma ci maa ngi taxawaat fii ne ñaar fukki millions yooyu ak juróom agsi na bañ ñëwee teg nañ ko ci loxo Baye Souleymane Ba ak imam Babacar Ba ak imam Mame Adji Maram gannaaw bu ma gisee moom monsieur le ministre Dakar ñu waxtaan loolu dafa war a leer

toog xaar moom ci mbooloo mi jaaduwut dañoo war a sumb rek na ku ne indi li nga ci war a def te incha allahu dana pare bi isnillahi tabaraka wa taala maa ngi koy wax bu ñu toog di xaar nguur bu ñu toog di xaar ni koy waxee sax borom xaalis yi bu ñu xaar yéen ñii la ñuy xaar ci jumaa ji nga xam ne Maolana Cheikh al Islam moo joxe woon ndigal li ko alaaji baaba demal nga rëdd tem ba yàlla dogal lam dogal muy yebal Sidaali Cissé mu ñëw taxawal ko keroog bi ma demee ci sëriñ bi ne ko dañu bëgg a reddaat mu ne ma dem leen yéen xalifa bi moom ko wax aji mu nii commencé nañ ko yebbi comme baatu toj dafa rëy yaakaar naa yéen ñu bari gis ngeen ko su ma ne dañuy toj jumaa ji ñu ne déet ëpp naa wax ma ne dañuy yebbi biri gi waaye nag jàkkaay maamalaaji maamalaaji maas jeeg maamalaaji saalum suñ kanam lañ ko yebbee liggéey baa ngi nii gis ngeen ko incha allah dana pare la ca topp mooy liggéey bële ca bayaalu Medina Baay ba fa sëriñ bi daan toog di jàngale yonent bi sallallahu alayhi ba benn gàmmu yéen ñëpp wala ñi ëpp ci yéen dégg nañ ci kaset mu ne mbokk yi wax leen alhamdulilah wax leen sax alhamdulilahi rabil alamin moom sëriñ bi Maulana Cheikh al Islam mooy wax ba mu paree mu ne ndax suñu jotaay bii yónnent bi teew na fi ci anam bu xam ne néew na feneen fu muy teewee nu mel noonu mu ne te teewaayam fii du dul yàlla faj seeni aajo mu ne ndax moom yónnentu boobu lu yàlla di séddale ci loxoom bi la jaar moo koy séddale mu ne jàmbu xeebu bii nag toog yàlla dogal ne lépp lu yónnentu boobu di séddale ci loxoom bi lay jaar bayal booba nag te ngeen dégg wax ji ni ma ko waxee fam ne yonent bi teew na fi ci anam bu xam ne néew na feneen fu mu koy teewee mu ne teewin bi nag du lenn lu dul yàlla faj seen aajo foofa nag buñ demee ba xalifaam cheikh mahamadul maahi xaadimul ummati xalifatu saaxibil faydati ustaazu tafsir saaxibu kursi tafsir alquran alkarimi rayisul ittihaad alislami almufakkiru walfaylasuuf walijtimaiyu alazim bu ñëwee taxaw ne def leen ci balaa muy mat bu matee doo dootu leen mën a def te li may wax barki dem rek la yaakaar naa ki déglu Alfayda dégg nga ko te dañ cee bëgg a gàmmu sama message fii tey benn rek la ma ne maa ngi woo mboolem taalibe bàyyi ci nit ak jinne ak njuuma fu ñu mënta nag nañ jublu ci bayal bi mu pare ni ko sëriñ bi bëggee ñu gàmmoo ci taalibe yëpp laa wax nag nigeria ba Indonésie ba Trinidad ba Ukraine ca Zaporojia fu man fu taalibe mën a nekk nañ futti suñuy tànk xar suñuy tànk tubéy li sëriñ bi bëgg ñu def ko mooy mu gàmmoo fa ci loolu nag mbay sa wewu tànk yéen waa daaru muhibbin maa ngi leen di gërëm bu baax di sant yàlla ci yéen danaa koy wax toujours ne bu sëriñ bi commencé woon ma xam ne dafa bëgg santaane ab liggéey kenn ci mbooloom baay mi balaa maa xam la muy wax danaa yëkkati sama loxo na ko sant ma ko te yéen ñii laa ci yaakaar xam ne li ma bëgg wax foofu du ma ci mën a sori dama bëgg waxuma ak daayira yi waxuma ak muqaddam yi waxuma ak président section yi kenn par kenn lay waxal xanaa borom kër yi bàyyi ja ci këram dama bëgg kenn ku nekk ñaari téeméeri dërëm laa la laaj am na sax ku ne ma def ko ñaari semaine semaine bii ñu nekk ñaar téeméer semaine ba ci topp ñaar téeméer ci góor semaine bi ñu nekk muy alxames jiñ tabaskee balaa dellu si góor gu ne joxe ñaar téeméer Jigen ju ne témèr ci alxames ji ñew ñu indi ko alxames ji tay topat bala muy wat gor gu indi wat ñaar témèr jigen ju nek témèr dama ne won na comme ñëpp danañ fi dajé dina leen laaj ndax lolu di ngeen ko man wala du ngeen ko man dafa jarul laaj. di ngeen ko def wala du ngeen ko def. <coughs> ji di ñew ma ne waxuma muqaddam wala daayira bi ñëw indi déedéet Malick ma bëgg nga bind Malick Wilane soxna diw nangam soxna diw nangam njaboot ñi ci mën a topp nga def ko list ak seeni mille francs jigéen ñi seeni cinq cent kër gu nekk alxames jii di ñëw koo ko mën a jox ba mu indi nga indi ko maa ngi bëgg nag gam bi de téye ko déggoo li ñu wax léegi xanaa déedéet mbir mi du fii rek joxe mille francs wala fii junne nii déedéet maa ngi wax ma ne ak waa daarul muhibbin ki am ngant sax mayuñ ko ngant sax mayu ma ko ngant bawuma kenn nag jënd nañu registre bu mag danañ ko ci bind bu ñuy yóbbu yooyu ca sëriñ ba damay yóbbuwaale registre bi xëy na du ma mën a yëpp duma mën a liir lépp ci kanamam ñu yóbbu ko incha allahu alxames ajjuma ñu yóbbu ko jàppaat beneen ajjuma ñu yóbbuwaat la ca des jigéen ñi ma ne ñaari téeméer ci ñaari semaine man ngeen ko wala déet wala dafa diis di ngeen ma ko indi wala du ngeen ko indi mayuma kenn ngant kenn mayuma incha allahu ñu dajale ko ñun ñëpp ñu ànd yóbbu ko ca liggéey ba bi sëriñ bi wax ne def leen ci balaa muy mat loolu rek kat sama message yi incha allah jumaas maa ñaan nga jot li ko fu mu mën a yegg wey ndee Euh, bakaw kaw Gàmbi ko nun tudd Rufisque te Dakar Alxaaji Asan Camara Fatick ca Maam Alaaji Saloum ñu nekk Espagne ñu nekk Amérique ñu nekk Arabie Saoudite ñu nekk Mali gii ñu nekk Guinée Ibrahima si Bouja fu taalibe mën a nekk ku aju si Daaru Muhibbin mayu ma la ngaan fii di ko alxames jii di ñëw ngir yàlla fexeel sa ñaari téeméer ak suñu bind ko ci registre bi bu kenn ñëw nag bu kenn ñëw ne ma daayira bi def nañ li déedéet waxuma loolu nit par nit laa wax jëflante leen ak bayaal booba yàlla faj seeni aajo dëppoo nañ ci wala allahuma fashhad bi anni qad ballaxt allahuma fashhad bi anni qad ballaxt loolu nag maa ngi woo taalibi bàyyi ci àdduna bi yëpp maa ngi koy waxaat gis naa benn site boo xam ne dañ cee bind deux cent mille de taalibe Baye Niass noonu la tudd bu fekkee deux cent mille de taalibe bàyyi ñoo ci nekk maa ngi ñaan deux cent deux cent millions de taalibe Baye bu fekkee noonu la maa ngi ñaan yéen ñëpp ñi seetaan à travers les réseaux sociaux deux cent millions yooyu bu ku nekk defee mille francs waaw mbooloo mi xool leen ñaar téeméer man dégg naa ku ne Baye am na deux quatre cent millions taalibe man nag 200 millions yi ma gis ci site bi laa wax ku nekk 1000 francs muy 2 balaa 2 semaines ñu yóbbu ko ca bayal ba yéen ñii nag ndëkkee ndukumaan maa ngi leen di xaar alxames jii di ñëw ci tàkkusaan ku ñëw ñu bind la ci registre bi ku ñëwut ñu bind la fa yàlla xam yàlla na yàlla defal ñu jàmm yàlla na fajaaju yëpp ñu doyloo yàlla wóolu yàlla ara ayta in kadaba wa tawalla alam yaalam bi anna allaha yara ku defut dëddu dem def feneen yàlla moom mag naan kallaa laa tutiihu wasjud waqtarib wasjud waqtarib joxeel yàlla faj say aajo yal na yàlla faj aajo yëpp tàkkusaanu alxames kon loolu rek laa bëggoon a jottali ñu ngi sant nag di gërëm bu baax a baax a baax képp ku xam ne demoon nga ci liggéey yooyu ku mel ni Cheikh Alaaji Saloum Ndaw sañ ci ngoone ku mel ni Cheikh Moustapha Salaan ci Calaaneen liggéey yu bari ñoo ko bokk wax dëgg yàlla seen taxawaay rafet lool loolu daal la ñu yàlla defal jàmm yàlla na yàlla yëpp yàlla na yàlla defal ñu tawfiq senegal gi yàlla na fi yàlla def jàmm Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm yàlla na yàlla faj aajo yi ñun ñëpp ñu dellu ci jàmm fekk fa jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu fatiha ñett salaati